à euh, euh, avoir des problèmes avec les problèmes euh, avec le nombre de listes. fa laa doon bëgg ñëw quarante listes bëri na. Ah dafa mel ni dañu delluwaat ginnaaw aussi ci situation bi ñu amoon 2017. te mu defoon président ak Sall. defoon parrainage bi on avait 47 listes. boobu donc sorante wuñu ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci marge bi alors. 41 mm-hmm. listes est-ce que du nar nekk élection bu complexe. mu mm-hmm. xëy na aussi xaw a mm-hmm. naqaree lijjanti euh, wala amul lenn lu muy changé que bu ñu amoon heureusement heureusement que Sénégal am nañu modèle euh, sur le plan électoral un modèle vraiment euh, je ne dirais pas parfait mais un très bon modèle okay. euh, parce que euh, soo ko soo ko gisee modèle bi li koy caractériser surtout mooy que les acteurs sont présents dans tout le processus, à tous les niveaux du processus. Du début à la fin. Le contrôleur également, la Sénat, est présente mmh. à tous les niveaux du processus. Voyez. Alors, euh, dans, dans, les, euh, au moment de, de, déposer les listes, mhm. de les valider, euh, dans les, les, les les, les, les, lieux de, dans les circonscriptions, mmh. les plénipotentiaires, dans les lieux de vote, les mandataires, dans les bureaux de vote, etc. Même le, le, le, le circuit de ramassage, mm-hmm. des, de transfert plutôt, de transmission des listes, mm-hmm. le plan de, de, ram, de, de transmission, mm-hmm. même l'OLU, 72 heures avant, le Sénat, il faut valider, il faut maanaam bu ñu jëlee bu vote bi pare ba ñu jël les PV du bureau du département. Mm. dafa am yoon benn yoon te benn rek lay noon dañ leen wax ne waru leen jaar beneen yoon. trajet bi lii la. trajet bi fii la. fii ngeen di jaar jaaraat fi jaaraat fi jaaraat fi ba am tribunal. Mm. cour d'appel. supervisé par des forces de l'ordre. supervisé te ak Sénat Sénat la Sénat fait obligatoirement partie. ok maintenant les listes là ñoom aussi suñu bëggee ñu suivre convoi bi parce que 72 heures avant dañ leen informer si loolu. Hmm. c'est pour dire le niveau de transparence si tout est mis en œuvre donc il y a un très bon modèle maintenant s'il y a un nombre de listes élevé effectivement ça peut poser des problèmes tu vois. il y a les listes d'émargement il faut les envoyer. Hmm. Euh, plutôt, plutôt le, le fichier. Il faut la l'envoyer 15 jours avant à toutes les listes. ñu am ko liste électorale bi. Mm-hmm. loolu liggéey bu 7 millions. liste bu boo xam ne 7 millions nit ñoo ciy nekk dafa yëg bëri. Mm-hmm. est-ce que tu vois. Euh, ensuite il faut nga am salle bu mag 41 personnes pour nga disposer leen parce que chaque liste a un représentant. Mm-hmm. pour nga di disposer également les les listes pour que kii voté bu duggee jàkkaarloog liste hmm. am loo droit yi nga def leen ci ay ruq yi nga def leen ci suuf yi nga def leen ci kaw non foo une équité une égalité. Hmm. en 2017 li ñu mujjee woon def mooy may électeurs yi ñu mën a yem ci cinq listes. voilà ñu may leen loolu aussi la ñu nar a reconduire at. waaw moom la ñuy reconduire mais même booy yemee ci ci cinq listes. yan cinq ngay jël cinq yi ngay njëkk a jot. yi ci digg ah wala ci yu mujjee loolu mooy tax il faut que ñu. teg yëpp yëpp fés fésandoo loolu kon day waral euh, bureau yi nga xam ne yëpp dañu xaw a xat dootoo ko mën a jël nombre de liste bi te da ngay dem uti te y a mille plus y a mille bureaux de vote te dañuy xam loolu dafa bëri mm-hmm. seize mille bureaux de vote tu vois alors donc le nombre élevé de listes sa pose des problèmes d'organisation mm-hmm. bon il paraît même les couleurs et les symboles tu as vu entre les deux fractions du PDS là. ne non man mboq laa def. ki <laughs> ne non c'est le mil. Mm-hmm. et cetera mais heureusement qu'on a une administration un code électoral d'abord qui règle ces questions là. Mm-hmm. et une administration qui fait ses, qui a l'habitude de faire cet arbitrage là. Mm-hmm. mais loolu c'est pour dire que plus les listes sont nombreuses. plus ces types de contentieux sont sont sont nombreux. Et ensuite, euh, il euh, des problèmes avec les imprimeries. Oui. Jusqu'à présent, ils étaient en train d'imprimer. Heureusement, au fur et à mesure, la ñuy mm-hmm. waaw man xam naa ci ñoo xam ne euh, jusqu'à trois jours si ginnaaw. Mm-hmm. Euh, jotaguñu woon ci seeni spécimens. voilà ils ont privilégié je crois l'étranger. ok tu vois foofu defe naa pare nañ depuis le le quinze je crois. Mm. maintenant au plan national. Là, ils continuent à envoyer les listes imprimées et mm. les. euh, les documents électoraux. mais je pense que tout sera prêt avant avant le scrutin. alors loolu daf ñuy indiwaat ci pertinence su parrainage. wala système de filtre parce que suñu continuer ni on peut se retrouver avec euh, peut-être plus de cinquante listes mm. ci ci élection ndax léegi euh, leer na ni nekkatul euh, caution mooy mm. bloqué mm. alors ci lan la ñu war a dem parce que parrainage moom cour de justice CEDEAO li mu ci waxoon leer na mm-hmm. acteurs yi ci Sénégal itam ni ñu ko combattre woon ñëpp gis nañ ko lan mooy li gën peut-être pour ñu dem vers la rationalisation ci bu ñuy jëm ci ci élection mm-hmm. waaw maa ngi doon wax léegi ne suñu système bi dañ ko war a moderniser. Hmm. waaw parce que am na yu bëri yoo xam ne système électoral bi Sénégal euh, weesu na ko. soo jëlee diggante 1960 ba 1996. Euh, euh, hmm. non ba 1976. alors Sénégal li mu amoon problème bi mooy amul.